machallah ku don nelaw na nga yewu te ku yewu na nga tok def sa café au lait bu ko suukar nak bu for bala sa tension di yek ndax nak jeeg bu ris bu am mana bi la grande dame vip jeeg bu am personnalité bi ama teral grande dame bi personnalité bi jeeg bi nga xamne kumu masel jamono baye nga ko xel jeeg bi nga xamne ne tabaar la chat allah li adina bi reey reey reey reey reey yep ku yeewu ku ne da nga nan yalla na melni ni ki tey aduna bi ci loxom ki jeukeram nop sagal ko am fulu lol am fayda xam bopam di gaynde di def katu lu bax di nit ku liis ku am teranga, <laughs> du ngeen ma laaj kumu mu ajartu ngoy fal mu askiya touré moma samal 2000 dollars man saa birim jigen 500 dollars 1000 1500 2000 li jala ngoy fal def ak man sàngone biram jigéen sama waaji ndela njaay jaafuñ ba dakil biram gu ñu damel ma jor damel amari ngone sabel ajer tu xuje fal gi yaayu mama Touré yaayu soxna may chéri askiya Touré Ngoy fa. la ilaha illallah Ken du yaw. ci mim réew dama ne la koma sel jamono bayi na la xel koo maaseel jamono yaa ko mën koo jamono yaa ko gën sel jamono yaa ko gën jamono yaa ko jongama koo jamono yaa ko rafet koo jamono ya ko gën a civilisé jamono ya ko dàq sañse tabarfakalla macha sa jëkkër ju sagal la waaye nag danga yàgg ci maanaa yàgg ci gën yàgg ci teraanga eh léegi lañ la miin ngoy léegi la la réseaux sociaux yi miin léegi la la nit ñi miin waaye yàgg nga ci daal gi ngoy dama ne ku waga ba wér ay piccu tàngaay du la saf ku yàgg jaaro dinga xam ànd bu boy bu boyul ngoy danga yàgg ci lii ngoy danga yàgg ci teraanga ngoy dara dabu la man mi ma la xam ma yag ak yow bi ngay am teranga bobu seyogok askiya bi ngay teral sa ajur ajurtu xujja faal muris mi askia, sëyogoog askiya nga nek jigen nak am jom am fulla am fayda am personnalité am dignité ma ngi ni jël sina naa bi keur ya mu ndaw sama jéeg bi mi ngi ni chéri lamine cissé sama jéeg bi ma fekk ci château bi mom nga jox 2000 dala mbokum dem jaar sen mu taal sama yaay ne ko joxal mako xolo luma am ak luma ma amul ñeewoo ma tegoo ma bëtt nga bëggal ma sa bopp rek nag te yàlla tax faal ngay nit ku riche am maanaa ku teral sa ndey ku jàppale sa yaay doon ku yàgg ku yàgg am personnalité Sénégal xamuñu la <laughs> eh! ngoy bu la meneen réew amoon dañu lay sukkal di la raamal ndax sakk nga cim réew su la meneen xeet amoon da ngay toog ñu lay woowee ni ñuy woowee buur Nigéria yi naan la igwe di dal ci sa tànk yi ndax ngoy sakk nga ngoy dangaa yóbbu turu Sénégal fu mu mës ta egg ngoy danga sagal di yëkkati valeur jigéenu Sénégal fu mu mës ta egg ngoy dangaa may Sénégal valeur boo xam ne mosu koo am ndax ya ñëk def lu kenn musta def ci biir sénégal ngoy corona bi ñëw ku ne di tak eh, masque popeline ñi di takk mayluus ñi di tak perkaal ngoy nga dem ba dubai fekk masque ya nga xamne dañ koy jël diko ko photo ak sotuwaar yi ñi jël diko photo ak médailloo yi ñi jël diko photo nga ne ko fay jël tak nga jël lepp fal fay ñu yóot takk wàcc biir Sénégal moom ko loolu nag sa jëkkër ju baax ji jàppale la li ma ne la dangaa riis laa tey askiya di ñëw yow yàgg nga ci ngoy bi nga juddoo di fowe oor nga màgg di fowe oor di jànqu di fowe oor yi lala sa yaay ja wax rek dafa doy sa yaay jaala ñaanal ajortu xuja faal nee na la yàgg ngaa def lii ba nga nekkee xale bu ndaw nga daan woote yow yàgg ngaa doon leader ngoy yag nga don leader yag nga don grande dame yag nga don ku ñuy top loolu nak yalla mo koy def nit nga ne di dem yalla koy def ci jam waye nit dugg ci mbolo ñëpp ne tek yalla koy def ci jam yow yalla la taal ku yabul nangu wiw sama waji yag nga def lu bax yag nga ris ba ngay ris bobu sëyagoog askiya ba ngay tak or di yor say boy diko tekle bobu booba askiya ngay nekk millionnaire di tabax ci château yi kër yu riis booba sëyagoog askiya ba ngay takk or fukki lam ñaar gauche fukki lam ñaar droite teg la say caq booba sëyagoog askiya ba ngay may géwéli ay or sëyagoog askiya ba ngay tera sa ndey di tabax ci château yi di dimbali say mbokk booba sëyagoog askiya yaayu Mama Touré yaayu soxna may mu rafet ni yàlla boole laak nag jëkkër ji gën ci jëkkër yi jëkkër ji nga xam ne nag tabaar la macha allah koo maaseel jamono bu la nee maa la mag ne ko maa gën jëkkër te koo ne maa gën jëkkër ngoy du ko miim Askia Touré mu fekk la nag nga yor say million nekk millionnaire bu yàgg mu ñëw nag dolli la ay million dolli la lépp lu mu am ne la yaa ko ko gënal ngoy ku la jël nag teral la nag boobu taar boobu jong ma bobu tay bu rafet bobu reetaan bobu raga jóg boobu bët la ilaha illallah ngoy dama koo bëgg yaayooyi ah, beug ngoy sangoone biram jigen yalna sa jam yag yaa ma teral groupe bi lay dug deub ko ba melni ni sunga fu suuna groupe ken musul jël sama vocal di ko waye ya, ma bëggal sa bop ngoy yaa ma fonkal sa bop ngoy damay tok ci sinaab bi wax lu baax ñu naan Pape Mbaye daa bëgg xam ngoy te fekk xamuñu ne xam naa la bu yàgg nga yàgg dégganteeg man di jëflanteeg man lu baax booba nit ñi xamuñu xamuñu woon riiru ngoy gi ba ma lay xam booba kenn xamul woon riiru ngoy gi ba ngay jëflanteeg man lu baax booba kenn xamul woon riiru ngoy gi tabar fakal la macha allah nga yàgg ci lu baax tencandee la njaay jaafuñ ba dàkkil birum ngu ñu damel maa joor damel ëmari ngoone sabel amari ngoone aram mbaay ji ñaax demba daali may sa joor yow kenn du yow yow ceddo nga amoo tiitukaay amoo ragalukaay amoo benn maam buy daw maam jooma sa am bala yow fukki bala ñaar ne tuy maam jooma sa am rek bala muy yow dañuy dóol ay bal tuy yow amoo dara looy tiit amoo dara looy ragal Sarr dafa judd fi nga juddoo màgge fi nga màgge yaroo fi nga yaroo sëy jot nga sëy teral sa ndey jot nga teral sa ndey am jom jot nga am jom bu sañ bu xew jotee nga sañ sa ba jekk bu génn jotee boo génnee àddina bépp ne gongo te loo sol yaa ko moom loo takk yaa ko moom doo sol ba pare pare naan na may defal ma ci saaj bi dem de joxal mako satan sa tante diw nee ko nee ko merci dangay ba pare bo pare wekki lepp def ko ci say boyet jubali ci bank bu dugal fa def sa bir ko na moo daray jeeg ab boo daray wàlli ken du yaw moo bima la gisse ak sama nday ju bax ji ajartu ay da ñongu aljuma ñongu xuddu jóob soxna mbuj ma nangu sir mata koku du baadoola du and ak baadoola tourner sen ndaag ngay teggi faal mourisme am manami chéri papaloo laa ilaha illa allah kuy nit ku baax ku bëgg lu baax dalay bëgg xam nga ku lay bañ wuyu yi band yi géjangiir yi kacapaa yi ñi bëggul lu baax xamuñu lu baax iñaan iñati iñañañi xaali xaali tumuranke borom xool yu ñuul yi te xola liy dagg seen xool dina yàgg dagg toujours bien chaque jours bien nii nga mel ren bu déwénee nu ko raw nga ko ëpp ngay mel risque gi nga risque tey bu subaa nu ko raw ngay mel ndax yàllaa la teral soxoruloo iñaanuloo bonuloo tubaab nee na nag tous les sentiments du kër se manifestent involontairement sur le visage lii ci sa biir xol bi moo ne day ci sa kanam bi ba ku la gis bëgg la saa boo sañsee jongama boo defarul sax dangay ngay jongama yow booy nelaw sax da yow yow booy nelaw sax faal dangay rafet kenn du yow yal na sa jàmm yàgg yàlla boo tàggoog teraanga yow yaay uurul ay ni laa <laughs> ilaha illallah mel ma ma nga yëkkati sa teraanga ji nag mu ñor ma lool ndax ci kiñ ko tek muy sama waji chéri papa ndjay xalé bouris bu amana mana bi ma fekk ci chaton bi mi ngi ni ris ya mu ndaw ndjay dekk ci chateau mi ngi ni dekk ci chateau bouris doomu yam jaji tabar fa kala ma sha allah tabar fa kala laaw chat mas mu demba jaag ak bara demba jaag walu dem ba jak Papa njay sa bay yow Anta jak sa yaay la ñaanal barki dem la wacc gambi ñew ci chateau ba nga dekkal sa yaay tabar fakal kàll loo liggéey jox sa yaay bala ngay tak wurs takkal bala ngay takk wurs da ngay jël wurs wa takkal sa nday bala ngay dekk ci chateau da ngay jël chateau ba dekkal sa yaay loo liggéey jox sa yaay ma dem sa yaay tim la ñaanal la la say mbokku gërëm la ñaanal la lekkoo dara bàyyi say waajur Chéri Lamine Cissé doomu Papa Ndiaye ji biram Ndiaye sa Ndiaye mi des ñaani bu yi bi ge sàngu leen njëleen mbay layti cukku leen njiklaan yow loo baax le mën nga ko yéene ko baax ko am mën nga ko brancher yàlla boole maak yow boole maak ngoy faal boole maak ajartu jaal seen sama yaay ji mu faatim biram silla mu alaaji omar seen séeri seex taal tabar fakalla masha allah yaayu maam jaara laaw la cat yaayu ak réussiya ay seigne Fallou mbokum dem Awa Seck mu bacci jaañ séeri Assane Mariama gay e eh, ngoy teral ma tek ko ci saloxo loxo two thousand dollar bu dollar bi yegge nek 1 million 300 bu wacce nek 1 million 200 dotu len ko defati ci man ngeen di dugg ci lu bax dotu len ko defati man ngeen di teral ci man ngeen di dugg di ma teral man mi nga xamne dara bëgg juma man sangoni biram man laake mi nga xamne kuma laal ma En laal ma ci lu bax teral ma mom sama lamine gi mom sama sinaab bi aduna bepp diko setan ku yewu da nga nan mbaaye ya lay xaar connexion yep maa jexal ngeen di dugg ci man ya ngoy ak jaal seen dootu ko defati yeen la diw beur bi fuma xeyé di len bak fuma xeyé di len tuddu fuma xeyé di len wax lu bax ngoy nak tabar fakal la allah ma teral ya yekati 2000 dollars jox mako ni dag ma déclarer guerre ci lu bax dinaa ko géer ak yow ba mu saf sàpp ci lu baax dinaa loof lu mel ni talaatay ndeer mu ngi nii dafa ne yaa mi ngi waaw da nga yëkkati ne ma danga may may cinq cent dollars jaal seen jaal seen moom kaas aat na ma cinq cent dollars yow nga yëkkati cinq cent dollars di ma jox ngoy ne ma bu ci kenn teg dara Pape Mbaye maa koy teral ba mu kontaan waaye yéen yéen a ma teral yéen a ma sagal yéen a jëflanteeg man lu baax yéen a gën ci man yéen a ma siggil réew mi dina yëngu tabar fa kàlla macha allah saa bu leen bàkk dinaa leen wax lu baax ngooy nag sa noon dootul nelaw de sa noon dootul am jàmm cuuraayu dëmm sànni teel sa noon yëpp jëfru laa naan teel sa noon yëpp ne tun jéemun jéekun sàkk jéekun salaamaala yalbat mbaaya laa ilaha illallah dakkil biram ngu ñu damel maa joor damel ëmëri sabel demel mel ma samba takku ma xuraje biram fatma sama mam ndaw ras la yendo njojam njojam daw birima yendo fa yendo nan ay sata samba fatma ma xuraje jor juromi ngeri saxal sen bay nga ta jam chéri ami mbay ma faal yaayu tiani sukay la ilaha illallah sir askiya ture jëkkëru ñeukante gi Dina la wax lu melni talatay ngoy man bay ngay teral man bàyyi teranga ngay teral la ilaha illallah lol day xew fi ci kër yaama ndaw li de la wax ngoy toj na fi doomu ajaratu ay da ñongu mu gën ni yow ngoy fa nga bax ma nga bax da nga gën kuy sa yaay ajaratu ay da ñongu ñongu job soxna moñ ma nangu sirimata yaayu Muhammad koku nga xamne bi mi tak montre 500 millions Koko mayar ak adjartu amin Soroñ ci diggu senegal ay dañu ngul lu ne may na nit ku am valeur nit ku riche walu walu bi nit ku am teranga ngoy di nga bëgg lu bax ngoy ba la gisé sama xel ci ay dañu ngul la dem ni la mësa mel ay dañu ngul ni la mësa riche ni la yagg yewé ni ni la yagg tabé yow ku bax wut si la ku bax bëgg la ba nga jëlé nak adjartu ay dañu ngul mi nga ne référence la diggu Sénégal ku mu maaseel jamono moo la mën ku mu maaseel jamono moo la gën moom ajartu ay da ñongo nga jël ko def ko yaay ci nga gën nag ngoy laa ilaha illallah